Liss maa ngi lay waaw ginnaaw bañ sant yàlla sant Yeesu Kirist ñoo ngi nuyu ñëpp di nuyu waa jàmm gën di nuyu képp kuy bëggee Liss Ndiago waaw di bëggee àdduna waaw di nuyu booy yëpp waaw ay Maodo ay Ngule ay yàlla borom ginnaaw raay booy yëpp yaa di ñaanal tamit Laurent yàlla may ko ndam pare nañ gaan waaw xam nga ki xam nañ ko bu yàgg parce que maam ci làmb lañ ko fekk mu nekk champion nekk ndaanaan waaw ñu yàgg ko suivre bu baax nag. mbër bu mag la de combat nag am fu mu mën a yóbbu quoi. waaw. a yóbbu. waaw am na fu mu mën a yóbbu fu am solo sax. Laurent day ñëw xeex day ñëw naxante bëre wala lan la war a def. waaw làmb la ñu wax door nañu wax. waaw incha allah bu yeggee jour combat waaw dinañ xam lu war a def moom quoi. champion champion champion boo xamante ni jaar na équipe nationale am na lu mu def ci mbapat am door moom ngeen di bëril ban approche a waaw te moom ñaanul maanaam ñaanu yàlla yem fii si làmb quoi day bëre pour avancer yaa ngi dégg waaw kon maanaam ñun dañuy bëgg di bëre champion sax quoi waaw. yow nag si loo ne. waaw man maa ngi si jàmm bu baax. Mhm. waaw maa ngi si maa ngi samay entraînement bu baax di waajal waaw. a man sa combat taxaw na am naa combat waaw. mais ki nga jël. maanaam loolu indiwuñu fi waa man Laurent moom fi indi. waaw kooku maanaam combat bi des ko waa nañ bàyyi. waaw après quoi loolu après la uh-huh. waa doo wax ci Pokola. non waaw kii nag waral loolu. kii mag la kii Thierno Tall. Ah. waaw man tam lu ne suñu ñëpp. Ah. waaw ñoom ñoo def si ñun. wóor naa wóoral. gars yi bëgg nañ la. waaw ñu ngi seer wér-wér. Hmm. waaw ñii mën naa ne suñuy doom lañ ak suñuy rag waaw ndax mën naa ne ñoom ñëpp sama kanam lañ jàng bëri ba si sita sax dañ ko jàpp sama loxo indi ko si man pour ma jàngal ko bëri bu ma déggee na xam lii may wax ñoom ñëpp samay doom lañ. mën naa nag sama temps sama ma mayu moom man may ñëw si làmb mais ku am jot damay ñëw sa bis si ta ba si Balla Gaye junior ba si Rona mii wallaahi azim waaye bu dimanche dafaa hmm. gay na xam ne mag ak gone duñ benn. ah am na combat de. waaye da koy xajal rek mu jàll. mbër bu mag bu mag ngeen di bëreel de. yàlla ñu may dimanche ñu fekke ko tal bu baax a baax waaw kay a cak kolobaan ñu ngi koy sant waaw cak kolobaan a borom bali may na ko xaalis bëri ñu ngi koy sant bu baax a baax waaw nag moom Rona moom moo ñu ko deseel waaw muy victoire bi te si kattanu yàlla day ñëw maa ngi lay bëggee da koy daal ñu ngi lay ay ca noonu la demee Kader bëgg naa la ay ca Laurent Ndiago Abou Sefa sama waa ji Abou jege ma ay ca Laurent ngi noonu di waajal jaar kilifa gi c'est sama waa yow nga may jege daf may neex. waaw yow sama waay nga yow nuyul nuyul ñu lay seetaan si direct Lutte TV bi. ñu ngi nuyu mbokk yi nga xamante ñuy suivre si Lutte TV di nuyu ñëpp nag di wax ne tey ñu ngi fi nga xamante ne mooy jàmm gën mais bu ñuy jàmm gën xam ne Laurent moo ñu fi woo tey. mais yàlla li may combat la di set yi diggante moom ak Tafa Gueye jàmm gën xeebuñu mbër ku xewlu ñëpp génn xoolal lu mel ci mbooloo nee naa la secteur développement ci lambu la moom waaw waaw ñoom dañoo bokk ci làmb ñoom waa jàmm gën bukar waaw waaw dañ bokk ci làmb jàmm gën le kenn mënatul wax lamb te waxoo jàmm gën moo tax tey gis nga open presse bi ni mu mel waaye ak a xew Laurent Ndiago am na combat de non am na combat kay am na combat capital Moustapha Gueye waaw Tarabaxa Tarabaxa borom Tarabaxa TV def lu ne ci la loolu ñoom dañuy cosaan mais Boucar lii lan la ucaa ci tuuri lii ay ucaa la waaw ah, Ucaay lii day laaj soow léegi ñëppay lamb laaj ay vin waaw ay vodka lépp daal lépp lay laaj laaj rosé rosé ay rosé déggal loolu kooku Liss Ndiago la nga wala Laurent la gëgër sës waaye loolu lan la waa ji àllu na de <laughs> ndeysaan laa ilaaha illallah ay waay jaan jaan ko loolu jaan la laa ilaaha illallah dégg loolu déggal loolu déggal loolu nga ji waaw ndeysaan cey jàmb gi jàmb gi day làmb xale yaa ngoog Lora yëngal na yëngu ànd ak mbooloo mi ànd waa Ikirim Boucar lool lan la cey booy waaye Laurent jël na jaan ji waay Laurent jël na jaan ji de Boucar jël na jaan ji de Boucar jaaram bi daa gaañu jël na jaan ji de jaaram bi daa mel ni lu gaañu sax dara bi yëpp daa xollee ko xaw ma nu mu demee noonu jël na jaan Ndour ak Dianji Babacar waaw waaw jël na Dianji de Laurent jël na Dianji ko xale bi ni ko Ama Baldé doon defee la ko xale bi defee. wekku na jaan ji ay eh waay loolu ak jaan ji waay mais daa sumiku daa sumiku ay eh waay loolu ak jaan ji waay eh ay ay waay Laurent ak Diane ji waay Laurent ak Diane ji cey Laurent ak Diane ji mais Diane Diaby lay nàcc dafa gaañu oh waay Laurent waay ay waay Laurent waay Laurent ak yeewam bi waaye ndeysaan fu ñu cey njaago bi andi maruma njaaku na ba njaago bu ko fuur bi njaago kayteel wala njaago bi Guinée Bissau njaago ba coolom wala ka njaago nayu <laughs> ay Laurent dégg loolu Souley Gaindé gi. waay nuyu naa la. naa la. ci loolu. maa ngi nii waaj. maa maa ngi waaj bu baax ma. yaa ngi waaj sa combat yeeg maa ngi koy waaj. mais tay dama ne progressé nga yokku nga de. non non mooy loolu dañuy liggéey rek ñun ay xale lañ yaa ma gën a xam dañuy liggéey rek di xaar. bu soobee yàlla. bu gisee lora. ah bu gisee lora. pare na si lépp jàpp daan rek bu soobee yàlla bu jàppee rek mu jeex incha allah. jërëjëf mooy loolu. kooku su dee gaynde la. <laughs> déggal loolu kooku mooy Caatu Jolof